sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuuru muhammad mbokki Kun Fayakoun TV yi ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalu ñi nga xam ne yéen a seetaan si kanaal bi te abonné si te bés bi nga xam ne vidéo bu ñu def rek ngeen mën koo am si santé seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad ñu bari dañ doon wax kaaraange raxas sa yaram biteel bi ngay sangoo juróomi fan. liggéey bu mu fekk sa yaram benn daf koy toj waaye day bileene waat sa yaram maanaam bileene gi mu koy bileene six mois liggéey du la jàpp cat du la jàpp làmmiñ du la jàpp te képp ku la yéene lu bon sa kawam lay këpp waaye bu six mois jotee da jëlaat biteel bi wala nga wutaat ku la ko jox waaye kaaraange dëgg dëgg dëgg toj liggéey dindi lépp lu nekk si sa wàllu yaram muy tooke bu bon wala dañ laa liggéey saa boo ko jëlee lépp dafay tuuru lépp lu la waaye defoon rek dafay dañ ci changé ba mu sedd wécc wécc te juróomi fan nga koy sangoo bu la neexee nga diwoo ko yaa xam waaye lépp loo xam ne ne fekk na ko sa yaram te bokku ci daf koy dindi ba mu sedd wécc wécc kaaraange total la day toj liggéey di dindi lépp lu nekk si sa wàllu yaram di dindi tooke di dindi cat làmmiñ bët bu aay lépp da koy dindi te képp ku la liggéeyati wala mu jéem laa laal day delluwaat si kawam ki moom mooy kaaraange total gi nga xam ne ne moom luñ si liggéey du day ndax dañ koy xëccoo chaque jour dañu koy laaj moo tax dañ si liggéey lu baree bari kon am na si promo màggal gi incha allahu rabbi dañ koy defaat ay promo li nga xam ne dañ ko doon jaayee temps dañ koy wàññiwaat di ko pour ñëpp mën a am bileene seen yaram a seen yaram bu baax kon am na fii si cabinet bi si Kun Fayakoun TV képp ku fi ñëw rek incha allahu rabbi daal na si dimbale bu baax a baax.